fay bu baax sama sama xarit ah sama frère jaar bu baax am contentement daf yegg si làmba ji nga xam ne moom lañ tuddee sunu maire muy monsieur le maire maire Medina maire ministre. ah maire teg ci ministre. maa la wax loolu. ni nga def baaxee ba. déedéet bés bi rek. gis nga ni nga def waaw bés bi ndax bés bi ni mel. waaw mais sa diggante ak moom lan sama diggante moom ànd bu yàgg. Mm-hmm. bëggoon sama baay alaaji bee sañ ah. kon kóllëre boobu moo dox. may bat géwalam nag tey moo tax lu mu woote woo na ci ñu gunge ko tey ma ànd ak Pape Birame moom it di sama frère ñu ay doomu Médina waaw muy ku baax waaw mais mais mais mais tey nga ñëw làmb te ku la la ci làmb waaw tey tey Jackson di bëre ki nga xamante ne nii mooy Ahmed Deme tey jii boo ci doon wax lu ndaw rek lan nga ciy wax waaw li ma ciy wax mooy ñu bëre ko ci mu jeex ci alhamdulilah. Mhm. que le meilleur gagne nag. que le meilleur gagne ku daan ñu xam ni. bu ñu fàttali lépp verte zone rouge bi la rek étoile bi ci digg bi. mais Baye Demba fan la ne maa ngi fi. di la ñu ngi waaj. incha allah waaw ñu ngi waaj ñu ngi waaj yeneen. Mhm. ah waaw ñëw leen ñëw leen ñu fo. ñëw leen ñu fo waaw. wala dem leen fo wi. ñëw leen ñu fo. Ah. dem leen fo wi tamit mi ngi waaw mais loolu dina garaaw ñëw leen ñu fo rek ah xam nga xale moom dañ koy xale moom mhm. xale dañuy foog moom ñëw leen ñu fo ngi ñëw mais na grand mbay fi sañ sañ ba mu ngi ci jàpp waaw ba xam nga ni uh-huh. kenn du yéen ci réew mi waaw yow yaa ma gën xam tamit ñun dañuy doomu réew mi rek mooy li may wax rek suñu réew mi daal yaa na fi jàmm yàgg amiin te ñu bañ a yee fitna waaw surtout loolu bañ a yee li may dénk ndaw ñi mooy yaru rek mhm. yaru ndaw da ngay yaru respecte sa baay respecté sa yaay ndax xale day am xale day am daal day am kilifa. xale day am kilifa waaw mi ngi noonu. ndeysaan lu am solo Alaaji Pape ñu ngi lay bëggee di la ziar. waaw Alaaji maa ngi lay delloo ziar. ci lan nga ne. waaw kontaan rek. kontaan xeeboon ni non dama ko xeeb. waaw mais dama ko xeeb man moom dama ko xeeb waaw. lii dama yàlla xam na loolu. mais lu tax nga def nii. waaw ñëw rek ànd ak suñu maire Bamba Fall. Mm-hmm. ñëw gunge ko. Mm-hmm. Euh, am fu ñu jaaroon maag Baye Demba. ne xaaral ñu ñëw fekk su ko vraiment ma ñëw dugg ci arène bi sama xol sedd guy waay. waaw kontaan na trop waaye ci ni ma gisee environnement bi laa ma ji quoi macha allah. ndeysaan mais mais mais à chaque fois dañuy gis say son ay message lay doon. waaw soo normal parce que euh, way mhm. wax bu ñu suukar la rek ndax wax yëpp wax la waaw bële yàlla day dogal kii baatam neex kii baatam du neex donc ñu boole ay instrument mhm. nga mën a way nit ki mën ko bégee mhm. mën ci am xol gu sedd donc loolu la ndax way nag bu yarawul te njeetiwul rek dootul way ay naxaate la mais la ngay way mbëggeel dégg nga ko waaw damay way mbëggeel defee uh-huh. boo bëggante woon ak sa soxna wala sa gel uh-huh. da koy gën a bëgg uh-huh. waaw mais mais am na sa benn clip boo xamante ne nii yaa ngi euh, euh, ku mu ngi la fa bàyyi. waaw yaa ngi téye musuwaar bi noonu. waaw yaa ngi xam son bi ma lay waaw loolu lay loolu dafa am lu muy mooy que ni jigéen. nga naan ko lan. jigéen booy nekk ak moom. waaw dee ko takkee wëtteen bu ko takkee bum. buy dem da lay yóbbaale te day métti. waaw déggal ni bu dee wëtteen le buy dem du la du la gaañ. nu muy def mooy que ni lépp loo gis si àdduna rek da nga koy yemale. Mm-hmm. benn mbëggeel laa xamante ni. Mm-hmm. na doon mbëggeel bu sincère woon na doon mbëggeel bu dëggu ñi bëggante loo leen di dénk nii ñu ngi jàkkaarloog yow waaw non ñi bëggante mooy ñu gën a bëggante rek dañu bëggante rek mais ku si nekk rek amul looy desal lu rek loo xamante ni on sait jamais bu nit kii di dem du la gaañ waaw booy bëgg na bëggal yàlla mais xam nga ne jigéen ñi amatuñu benn copain waaw loolu moom euh, <laughs> doy na waar doy na waar <laughs> mais ma ne ko loolu moom doy mais tey noo gisee làmb yaa ngi ñëw gis nit ñi ak ni làmb ji mel tey loo yëg waaw environnement bi moom déggoo ma ne la làmb kii dem di ko seetaan mm. nga naan kii la lay def ci lamb ji ak lamb bi lu muy amee ay violence lu muy mm. amee ay agresseur mm. dafa mel ni yow da nga ñëwul vivre lamb comme ni ko nit ñi di vivre ndax lii cosaan la li lii dafa rafet lii dafa neex lii dafa lii day seddal xol man ma nekk ni sama xol bi dafa neex macha allah gisoo lu dul bëre ji rëj <laughs> te noonu rek laa Eh, ndax bu ñu leew dama lay pes. waaw pes naa gaaw. door la pes. nga gërëm ah, kenn du yow. <laughs> macha allah nañu yàlla na jàmm yàgg. mais mais mais lan pare album album boo xamante ne uh-huh. actuellement mun naa ne pare na ba pare. Uh-huh. Euh, li ñu dese bariwul incha allah pour ñu génnee ko. waaw waaw waaw bari na ay thèmes yu na ay bari ma bëgg daal mooy Sénégal. nañu gën a dundal làmb ndax lii dafa neex waaye. Uh-huh. lii daal vraiment. neex na waar daal. am xol sedd na. Bamba Thiam maa ngi nuyu di la bëggee di la ziar. waaw maa ngi lay delloo fay Bamba Thiam. Hmm. di la ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mépp Bamba Thiam. waaw ndeysaan avant tout xam nga ni euh, euh, ñu ngi jëm ci 8 mars. dëgg la Bamba lan ngay digal jigéen ji nga xamante ne nii ndeysaan ñooy sonn boobu ba léegi euh, instant bii nii lan nga leen di gën a ñaax ci 8 mars bi. Bamba Thiam jigéen muñ rek ko jig jigéen joo dégg ñu ko fi coow ji muñ rek ko jig. ndeysaan yàlla nañu yàlla may rek ñu gën am lu ñu doolee muñ rek uh-huh. ba yàlla may leen njaboot gu barkeel uh-huh. loolu rek lañ leen di ñaanal góor yàlla yi ñu yërëm jigéen ñi uh-huh. nañ leen yërëm rek te yàlla rek tax ndeysaan waaw Bamba mais ñu ngi jëm ci combat bu mag combat boo xamante ni nii diggante mag la ak xale muy combat bi nga xamante ni boobu ba léegi ñëpp ngi koy xaar te ji ku ci nekk boo ko indi woon lan nga koy digal ci diggante Ahmed dem ki nga xamante ne ne rek mooy làmb ji tey. ndeysaan. Jackson mi tey ji bu agressé wul Ameth Deme du ko daan. mi bu agressé wul Ameth Deme du ko daan. ndax lan bu bàyyee Ameth Deme fekk ko ci benn ah. kon Ameth Deme warul jàpp ngembam non non Ameth Deme tey daa war a jàpp ngembu Jackson ah bu dee Jackson laa warul nangu Ameth Deme jàpp warta àgg ci ngembam ah. te Jackson li koy may ndam tey jii ci combat mooy mu agressé Ameth Deme ah. ak un peu front loolay tax tey ji mu mën a am accès ci biir Ahmed Deme. mais di ko ci digal xeex. xeex bu sax boobu mooy agressé bi xeex bu sax boobu am euh, Jackson war a def tey ji mooy koy may ndam ci combat bi. Ahmed Deme lan moo ko war tey. Ahmed Deme am garde wàcc dégg Jackson dem koo téye ci ngemb. reye lamb ji. mën na ko jaay doole wala. kan. Ama dem mën na ko jaay doole wala. non non non non mënu koo jaay doole. jiwu ko ci mën na koo maîtriser rek. mën na ko maîtriser. mais mënut a jaay doole Jackson. li may dénk rek tey jii bu man maa ko man Fadam. Mhm. dama koy xeexloo xeex bu sax boo xam ne day ànd waaw toog ay tànkam waaw. mais mais mën nañ ci gis bëre tànk déggoo lu ma la wax Ahmed Deme tey jii combat li ko ci gën a jig mu bëri tànk jig na ko mais risque la. ndax ki muy bëreel dafa dafa am as suuf. daa taaju daa taaju ji mooy premier stage bi Ahmed Deme gën ci combat mooy mu jàpp ngembu Jackson. bu ko jàppee rek ngembu Jackson làmbam day bëri day tëju. ndeysaan jaa ngeen jëf sama gars yi waaw mais fay naa la doom yaay. waaw ci lan nga ne. sant Serigne Touba képp laa. waaw mais 12 ans fan nga ne ci réew mi. non maa si àll Nandi Fall day daw. Nandi Fall. yaa ma dégg. Uh-huh. Uh, Gàqu 2 day daw. Gàqu 2. Bébé Julle day daw. Bébé Julle. Boy Niang day daw. Uh, Boy Niang men. ñoom ñëpp dañuy daw. mais ñun ñëpp fi mu ni nii da ngaa pare pour jël leen. Youssou Ndour Papa Ndiaye tëggoon nañu combat am na 5 de delloo avance na ko jëlaat. mais loo gis ni lan noo lan nga gis ni moo tax mbër yooyu noonu kenn ñemewu la cee jox. bëgguñu kuy entraînement bëgguñu kuy compétir. lan la ñu bëgg. ku toog nooy. Uh. nooyal lañ bëgg te man dama lu muy gën a yàgg di gën a métti na gars yi ñëw nañ bàyyi tapet gi uh-huh. man waxuma daraay tapet barki Serigne Touba Mbacke parce que maa ngi nii nekk ci loxo yàlla yoo xam nga ni mu demee waaw dëgg la waaw nga changé équipe dem sa koñ waaw koñ bës saw mais diggante beeg léegi am nga ñaari dañoo yàqu daw beneen ma bëri daan loolu dong moom ma téye tool toog di xaar maa ngi pare naa pourtant ci nga jógee nii nii may wax yow pare naa nii nii mu ut sër dugg ci biir nii ah. tàngal ko ba mu tàng non mais man dama ñëw pour ñëpp sama doomu ndey laa indi nag sama rak sama xarit ñoo bokk ah. benn koñ bokk fi ñuy yeewoo muy sama genn waalo di sama tutànk muy booy waalo booy di ko ñaanal yàlla defal ko ndam suturaal ko parce koñ bi ñëpp a génn gars yi jàpp ci parce que Serigne Saliou Mbacké ñaanal taw féex mu am ndam quoi billaay tey dafa war ndam war na Seydina moom li may wax sama xol ko jëlee yàlla na ko suñu borom defal ndam jërëjëf waaw sëñ Fallou yow làmb la rek. Ah. waaw mais mais mais noo gisee làmb ji li nga bëre. wa sant yàlla bu baax a baax sant Serigne Touba xam nga di xam ne nii la woon rek dama daan ñëw di daan maa ngi doog a daanu. bi hmm. may sama cinquième combat. mais dafa mel ne daanu bi gëmoo ko de. non xam nga lu tax gëw ma ko. Ah. parce que man dama kaa fàq mu daw ma wër ko ndomba. Hmm. arbitre bi daw signalé ma yaakaar làmb jeex na. ñu continué waat di bëre loolu moom moo waral loolu quoi. Eh. te si même même wër ndomba bi sax dama see génn. xam nga yàlla def li mu def daal dama koy sante yàlla ndax yàlla moo mën. waaw loolu la quoi mais mais mais mais def da ngay def recours wala looy def. waaw bu leeree rek wala da nga koy ma xoolee bu leeree. xam nañ la ñu yoon may dañ koy dem dem def parce que am na ñu nekk si suñ ginnaaw te mënal nañ ñu ko quoi. xam nga di sant nag ñi ma àndal ñëpp di sant samay supporters xam nga daanu mel ni yaa daan dama neex. man moo tax xaw ma si benn pression bu baax yàlla moo ma daan may ndam yàlla moo ma xañ dama koy sante ndax yàlla xañ na ma lu gën a pire ndam dana ma kaa sante xam nga ki fi jëlee sa doom ak sa papa si benn si benn bis nga sant ko yàlla kan du làmb ko kan damay sant yàlla bu baax a baax dara feesul sama bët man taaliba Serigne Touba la waaw sant yàlla bu baax yàlla